ne boo dee xool ci saxiixu muslim sahlu ibnu abi saalih daa wax foofa ne saa baay day damaa mës yónni ci banu xaarisata ma ànd ak koo xam ne suus mbóora mel ne ab jaam la ci ñoom góor si nag dégg koy woo di ko ayu gaa ci aw turam waaye gisul jëmm ji mi ngi dégg daal kàddoo mu di ko wooye ca miir ba waaye séenul jëmm ji mel ne moom ci boppam nag moom ngóor si moo yëg ci kaw miir ba di xool ba xam ku koy woo waaye gisul kenn léegi ma ñëwee ma wax ko saabaay ne ko bu ñu dem ba ci yoon wi day daa am ko doon woo ngóor si jaar ci aw turam waaye ñu xool xool gisuñu jenn jëmm kàddu gi rek lañ doon dégg ne saabaay ne ah su ma xamoon ne su ma la yónnee da nga taseeg waajur ne sa bayne ah suma xawone suma la yonne da nga taseeg waa jooju day duma la yonne ndax waa jooju la koku setané dong la waye lu mel ni bu la dalal di nod rek ndax setané mom yorante bi néna na ñu nodde rek mu jam aw xilam may mu dal di daw kon ku yek seytaane mbaamu mu ko mbaa njuum ak ko nar a jommal ak yu mel noonu daal na nodd ba noppi nag jàng ayatul kursi yi teg ca ndax ayatul kursi yi moom lu ñuy aaroo ci bind ak ci jàng daañu ko bind takk daañu ko jàng itam lu ci nekk rek ayatul kursi yi mën na ko